y avait des des des des, des ci biir euh, on de sept personnes encagoulées dugg sàcc euh, avant sax ñuy xam yooyu noonu yëpp li ñu jot a dégg rek mooy que ils ont attaqué un bus y a eu deux morts et ñu bëri bëri ils ont pensé à Pastef au parti Pastef. pour yow la moo tax loolu non non non non du ñëpp xalaat loolu. sérieusement du ñëpp ñu bëri laa wax non avec tout le respect. avec mm-hmm. c'est-à-dire xam nga euh, wolof ñaay dafa ne euh, ñuy gàmmu ak ñuy raas yamuñu. Mm-hmm. vous savez que manifestation boo gis ak fu mu mënti am ngénte sax da nga def am na yoo xam dañuy ñëw pour sàcc ngénte yi dëj yi sax nit ñi dafa am na yoo xam dañuy ñëw pour sàcc nit ñi dañuy nekk seen naqar ñoom ñu ñëw pour sàcc nit ñi mm-hmm, donc loolu fépp nga koy fekk sur le principe man je suis contre la violence mm-hmm. Pastef est contre la violence ça c'est le principe mais gis nga dans cette affaire là euh, oh, oh, man gëm naa ni dina am yeneen yu si génne nga xam ni vraiment dina dina surprendre sénégalais yi Hmm? parce que affaire bi en réalité mu demee parce que je vous dis eh, parce que y a des témoins man seera naa vidéo bi y a une dame qui a témoin qui a dit que en réalité moom li mu gis kenn gisu fi blessé parce bi affaire yi amee nee ñëpp daw nañu génn dem seen yoon d'abord xam nga loolu wax na loolu mais ensuite mais ñun ba on nous dit deux personnes mais Ousseyn c'est quelles sont deux que jox nañu identité de ces personnes là seen identité mais attentat soo amee ñu diw daf siy gaañu mais c'est des questions moo tax ñu ni ñu ni ñu ni parce que le président Ousmane ko il avait dit d'ailleurs cette vidéo est en train de mhm. avait dit que sañ nañu créer cet attentat bopp ñëw bëgg ko takkal Pastef pour lan pour wax ni Sénégalais ñii ngeen. bëgg ñii ngeen bëgg a jox confiance. ñii c' est des terroristes c' qui sont violents c' est des xam ne soo leen joxee réew mi dañuy ay coo euh, coono rek nañ fi andi c' est ce qu' ils veulent faire comprendre Sénégal mais dama ni c' est une peine perdue en réalité gis nga les Sénégalais ils ont déjà fait leur choix le président Ousmane Sonko est dans l' et le cœur des Sénégalais.